pas avancé parce que tali yi dara baaxul mhm. et puis camions yi aussi dañ koy jox ay xale yu ndaw ñu di ko dawal ak ay vitesse yoo xam ne si biir port bi man ñemeetuma dugg biir poor ak sama oto mm. c'est compliqué waaye léegi yéen euh, par exemple benn idée bu sëriñ bu nu waxoon le port euh, à conteneur bi nekk bu bu ñu war a def Kaolack par exemple. port sec voilà port sec. mu nga hmm. xam ni day euh, day desservir bu boobaa Gambie gine comme ni ngay wax hmm. Mali. Hmm. pour pour yéen c'est une solution. bien sûr. bien sûr ñun nañu au niveau de les gens de Anam. pour laaj leen ndax mën nañu jël une partie du port de Ziguinchor. pour teg foofu suñu ay camion mm. suñu ñu déchargé dem mais loolu ça concerne Dakar Pétrole mm. loolu c'est un sujet mm-hmm. amaguñu autorisation pour ça je pense que projet bi mi ngi ak anam dégg nañ seen doléance merci beaucoup Adja Jeanne Mal ni ngeen euh, réagir par rapport ak euh, émission bi ak jafe-jafe yi nga xam ni yeneen am ni may wax port bi na problème port sec oui ah, finalement il y a beaucoup de problèmes il y a <laughs> alors le port le port bi euh, port sec bi Serigne Mboup proposé c'est une solution non c'est qu'en fait c'est une solution. Mm. mais malheureusement depuis ñu kiy wax wala ñu ciy xalaat. ba léegi amul benn benn luñ ci jéem a wax. te dinaa la wax dara tant que DPO doole biñ ko jox jox nañ ko ko conteneur du gaaw a génn fii di dem feneen. Mm. mais aussi monopole boobu mënuñu revenir dessus compagnie bu nekk am responsabilité wu génne y' part pas. ça ça il faut demander ça il faut demander ça je vous assure qu'il faut. <laughs> je n'ose même pas ay ah. clause ou pas clause tey dafa am benn affaire mais bon si si ça pose problème à ce point. mën nañu woote waat xool. en quel terme c'est pas DP World qui élit un président ou qui élit des des des députés. mais c'est ce que je suis en train de dire donc ce sont les Sénégalais. ça veut dire que tey dama am ay affaires yoo xam non gis nga dama lay wax dara. non Diakhouba c'est que man li ngay wax tamit s'il y a autant de problèmes je ne peux pas comprendre. dama lay may may la benn problème. Ah. quand je prends un conteneur de MSC ou bien de CMA CGM. Mm. à Dakar j'ai quarante huit waaw ñaari bis laa am gis nga bu ma delloowul conteneur bi hmm. maa ngi koy fay bis bu nekk vingt cinq mille hors taxe ñoo xam ne euh, muy vingt cinq mille nangam ça veut deful transport yorul xamul lu pneu du jar xamul lu carburant di jar actuellement nii may wax ak yow hmm. moo ëpp lu muy gañe xaalis ci transport te ñoo ñëpp duñu ay sénégalais déedéet forcément. waaw en fait man dama am benn question lan mooy mooy pourcentage wu ci biir port bi. waaw euh, ñi fa nekk di liggéey noonu. Mhm. en tout cas société yi fa nekk. Mhm. lan moo fay sénégalais ak lan moo fa dul sénégalais. boo jëlee domaine transport. waaw depuis que 2009 ci lañ libéralisé transport de conteneur. Mhm. parce que dafa am benn étude bu ñu defoon Abdoulaye de ne moom daal dafa am lu ko jaaxal gis na ne conteneur li ciy dugg Sénégal kenn xamul nu mu toll. dafa buggoon ñu defal ko ci étude xool ba xam côté transport bi yooyu bi gars yi defee euh, étude bi gis ne rien que côté transport bi c'est des milliards yoo xam ne mooy kii. Mhm. mu ne léegi Sénégal lu ñu ci am ñu ne non aucun Sénégalais. waaw mu ne léegi ce qu'on va faire nañ libéraliser. transport de conteneur bi. Mhm. que Sénégalais yi kese am droit def ko. Mhm. maintenant bi nga xamee ne en 2009 libéraliser nañ Sénégalais yi créé seeni seeni seeni société. mais sans compter que comme dañuy euh, def réglementation. boobu ñoom ñu base yu ci tubaab yi moon conteneur ne ah il faut ngeen def ay charte yoo xam ne mooy tax donc ñu xam ni ñuy def est-ce que xam nga zone une ñaata lañ ko defoon 12 heures de temps maanaam ne 12 heures de temps ku ci jël sama conteneur da nga koy yóbbu ci client bi mu déporté ko nga delloo si ma ko budul loolu da nga may fay 25000. Hmm. boo génnee Dakar trois jours laa la may boo ko delloo si da ngay fay 25000 par jour. société yu bëri tëj nañ ndax détention yooyu moo leen tëjloo. Hmm. ñuy xeex ba ci lañ créé suñu hmm. collectif bi en 2018 ci la ñuy soog soog a changé waat arrêté bi hmm. mais comme ministre bi amul woon euh, booba kii moo fi nekkoon euh, kii Guèye bi nekk Sangalkam Omar Guèye hmm. xamuñu ci lu bari defuñu il met Dakar 48 heures euh, intérieur 3 jours 6 jours pour les régions périphériques ba tey jii may wax yow lu ñu gën a sonal. mooy lu ñu gën a fa yow alors lu ñu évoqué ñoo xam ni tamit ils ont été mis en cause ils réagissent Afrique Pesage monsieur Faye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay alors très rapidement rek nga expliquer ñu li ñu doon wax le bien fondé de pesage bi ak euh, surcharge à l'essieu bi parce que apparemment bon ñoom euh, d'accord ñu ci trop. waaw maa ngi lay di nuyu ñu nekk sa plateau bi yëpp. Euh, di wax ni rek parfois day am amalgame yu yu yu yu acteurs yi di di indi ci pesage. Hmm. c'est-à-dire il faudrait que les gens comprennent que essieu moom mooy yàq Euh, Pape Djibril Fall mi ngi ko doon wax léegi nee na euh, booy booy daw euh, Sandiara. Mhm. booy daw jëm jëm caajaay boo egsee ba da ngay gis xarit ni muy ni muy mel ne ni genre bac mhm. parce que essieu yi nekk mooy ruu yi mhm. ñoom ñooy ñoom ñooy surchargé tali te tali day day nokki contrairement à ce que les day nokki donc trafic bi plus muy bari plus muy jaar nekk en surcharge plus muy impacté def pression ci bitume bi loolu mooy tax muy noo mhm. donc règlement 14 dafa ñëw pour réglementer parce que tali bu nekk dafa am dimensionnement bu mu war a jël dimensionnement bi mooy poids bu nekk dafa am lu tali bi dafa am poids bu mu àttan par essir mhm. maintenant état du Sénégal mooy mhm. accompagner acteurs yi mu ne PTAC lay dawal pour le moment maanaam poids total bi lay jël mais à la longue normalement essais yi la ñuy contrôle pour le moment acteurs yi ñoom euh, délestage bi euh, c'est-à-dire bu bu bu surchargé. Hmm. bu ñëwee ba ci ba ci ba ci site bi duñ ko bàyyi mu continuer dañ koy wàccee c'est ce que l'autre disait Pape Djibril Fall te ni dañ koy wàccee oto bi du continuer parce que bu continuer day day yàq tali bi voilà ça c'était la première précision la deuxième précision mooy boo gisee oto yi hmm. oto yi di di yàq pont yi parce que gabari bi la loolu aussi règlement 14 daf ko daf ko réglementé c'est-à-dire le dafa war ne nekk 4 cinquante bu ko dépassé ouvrage ah. d'art yi dafa am hauteur bu ñu war a bu ñu war a toll su camion bi dépassé ouvrage d'art yi da koy mbëkk règlement 14 euh, euh, réglementé ko ba nga xamante ni bu camion bi ñëwee dañ koy dañuy mesurer aussi euh, le gabarit te buñ ko hmm. mesurer bu fekkee ni gabarit bi dafa njool dañuy arrêté oto bi foofu malheureusement amul site bu am Dakar ba ba ba ba Rufisque parce que foofu dafa am problème espace donc il faut mu ñëw ba jam ñaajo pour ñu mesurer ko mais bu ñu amee espace bu nekk entre Dakar ak ak Rufisque dañuy def foofu site ba nga xamante ni les accidents qui sont au niveau des passerelles tout ça seront évités voilà loolu mooy question yi ma la ko. merci beaucoup merci beaucoup monsieur Faye alors ñi bëgg réagir yëpp may jéggalu vraiment du mosieur kamara je pense que votre préoccupation léegi monsieur fay euh, jël na ko en compte Djibi Ndiaye les transporteurs qui appellent euh, <laughs> Pierre Pierre ci boppam déy na ma nee na ma c'est devenu ingérable je pense que beneen yoon bu ñu wootee. boor ak acteurs yëpp dinañu nangu ñëw toog ñu waxtaanee ko c'est un vrai problème. c'est mm. un grand problème. gros gros eh, eh, ñi mu impliqué dañu dañu bëri. mesure parce que là c'est non mm-hmm. xam nga dafa am wax boo xam ni. Uh-huh. nan ngay jële mm-hmm. ne day yàq point yi. Mm-hmm. mu dem ba jëm ñaajo nga ni ko auteur. y' a pas de point au ñaajo. c'est-à-dire bi ñu lay mesurer fekk génn nga pont yëpp cause la vérité hauteur bu ñu ko doon mesurer avant ngay génn port lañ lay wax ne doo romb benn pont mooy dëgg mmh. Ah. Mmh. monsieur la et pour sécurité nit may la benn détail bu ndaw ah. Ah. tu sais que quel que soit poids boo mën di jël boo demee Afrique Parabus fay 2000 quand j'ai demandé au ministre mu ne ma pour entretien wu pont bascule la mmh. est-ce que TFM clients yi fi jaar dañuy fay 2000 pour entretien wu TFM ah ko de loolu leen jox paas société privée la frais technique non ma wax la société privée ah, nga ne société privée jox pour maintenance les francs maintenance allez allez non da da fi indi loo xam ni loo xam ne ñu ñaar daf moo ci war a compal te jotaguñu ah Ibrahima Dieng wuyul fii <laughs> waaw bu buuba loolu it kenn du ko wax ci télé ah, mais léegi léegi <laughs> le débat pour la négociation Charles le débat pour la négociation vraiment ah, Der le débat pour la négociation waaw waaw ñu jeexalee léegi ñan ñooy nekk autour de la table ba nga xamante di ngeen ci mën a xaar li ngeen ci bëgg ñan ñooy nekk autour de la table ñan ñoo war a ñëw toog man de bu ma la waxee dëgg rek li jëm ci règlement 14 comme premier ministre amatu fi dama bëggoon mag Sall ci boppam impliqué wu ci. yal na ko yàlla yërëm alors procès bi ñaari ñaari fan ci ginnaaw verdict bi siiw na perpétuité la ñu tëj euh, Samba Sow condamné travaux forcés mooy liggéey bu mu sañu la bañ ngir dundam boobu tamit ban appréciation ngeen am ci verdict bi procès bi ni mu mujjee. alors Papis Diaw. dafay alors. Eh, l'histoire eh, peine de mort man su lu may renvoyé waat quoi. parce que je mm-hmm. disais que peine de mort ça n'a jamais réglé les questions de de crime. dans mm-hmm. tous les pays du monde ça n'a jamais réglé le problème. mais ma ne dafa am peine de mort indirecte. Mm-hmm. c'est-à-dire quelqu'un qu'on met en prison à perpétuité pour man on t'a déjà tué. Mm. tu es déjà mort pour man c'est ça c'est déjà suffisant donc quand tu as la perpète. t'as pas besoin de de la peine de mort. parce que la perpète c'est l'équivalent de la de, de la mort. Bouba perpétuité. on mais sérieusement je pense que benn moment euh, nguur def na li mu euh, kii yoon def na li mu war a def man amuma si amuma si commentaire. Pape Djibril. oui man déjà damay ñaanal soxna si ah, yàlla yërëm ko. c'est atroce condition yi nga xamante ni moom la génne àdduna. li ñu presse bi di wax aussi par rapport ak déroulement procès bi tout le temps dangay nga yéemu ci suñu borom. Mhm. da naan comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point là nan la nit mën a eggee foofu. donc euh, yàlla rek moo xam. Mhm. ce qui s'est passé en réalité. mais di di di masawu njabootu soxna si di leen ñaanal tamit euh, voilà yàlla may leen xolum muñ ko Charles. waaw justice liggéey noonu. Mhm. maanaam. waaw boo demee boo boo amee habitude di liggéey ci prison yi da ngay xam ne la question de la perpétuité. bëri na trop ce qui nous doit nous ne ñu réfléchir bu baax en pour man am na yaa war nañu poser wu ay question yu bëri ci suñu jeunesse bi c'est-à-dire euh, ça tue mm. ça tue et ça justice bi loolu rek la mën a def c'est-à-dire kuy rey moom buñ la mun mënee jox te tey ko mm. buñ la mun mënee jox plus de vingt ans mérite nga lu gën a yées loolu quoi mm. mais c'est c'est une question bu ñu war a taxaw bu baax Diakhoumpa comme yaay gan bi ñu. waaw gan bi day euh, du ma fekk li Papis Diaw tey ci waxam ji parce que man dama am loo xam ne vraiment man daal mënu ma ko accepter. rey bi ñaaw na ñaaw boo xam ne ba pare gratuite. Mm-hmm. façon boo xam ne kiiwul. ba pare nga jël nit ki tëj ko à perpétuité mu lay indil yeneen conséquences ah di nga ko dundal di nga ko yor moi je pense que peine de mort foofu man non parce que c'est des déchets c'est des gens yoo xam ne mérite des non qu'on se la vérité dafa am doxalin boo xam ne nit bu ko mënee def tey soo jëlee sàng ki njëkk a wax dem fekk ay nit ci sa kër pour sa nga def non c'est des gens à éliminer ñu noppal la gis-gisam la ñu nangul ko ko gis-gisam la yéen ñi ngi ñi ngi lay gërëm ni ngi ñu wuy soyi ni ki première partie bi Souleymane Diallo